mbokk yi tey ji jox nañu kàddu ñi nga xamante ni ñuy ànd ak yaay puy si wàllu politique ñëpp gis nañu sorti dem bi nga xamante ni Moustapha euh, Moustapha Moustapha lan sax Moustapha Seck voilà voilà mbokk yi tey ñu ngi ànd ak euh, kën naan Pape ñaa Pape Niang day yëngu si politique derrière mouvement bi di ànd ak yaay puy fal Amadou Ba ginnaaw bi Moustapha Seck Mawo coordonnateur zone yi di defoon ay sorti jëmale ko si leaderam moom tey dafa ñëw pour indi ay précision Pape ñu ngi nuyu. merci beaucoup Babacar maa ngi lay nuyu maa ngi amaan mbégte bu baax di jàkkaarloo ak yow Pape ngi la responsable politique APR Ndindi en même temps chargé de communication du mouvement ànd ak yaay puy di nuyu soxna Faat Bint Puy bu baax di ko remercier ci journée bu mag bi nga xamee def na ko bërki démb vraiment ñu gis ne am na ci réussit total di nuyu équipe type bi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi. vraiment ko gis liggéey bi nga xam ne def nañ ko nga xam ne département Mbacké kontaan nañ rawatina commune bu Touba merci. voilà Pape yan réponse ngay apporté par rapport ak sortie Moustapha Seck bi. xanaa am gàcce ak déception bi ma déggee Moustapha Seck Mao di wax vraiment bi ma ko dégloo dama rus ndax ku xam ndindi ak li ko war xam ne wax dëgg yàlla ku fa génn di wax boo déggee ni Moustapha Seck waxee tey mën naa ne tey ñëpp ñoo am gàcce. surtout li mu wax ci journée bi nga xam ne ni soxna Faat Bintou Pouye def na ko di profité di remercier ñi nga xam ne ni ñoo àndoon ak moom journée bi rawatina responsable femme ci engagement bi nga xam ne ni wane nañ ko ak bëgg-bëgg bi ak gëm programme soxna Faat Bintou Pouye wax dëgg yàlla su ma déggee Moustapha daan ne mboolem ñi ñëw ci journée bi ku ne junni la la jox man damaa rus dama am gàcce même ñu koy déglu sax dañuy rus ndax ku xam soxna Faat Bintou Pouye xam ne moom ci programme lay dox. ci gëm-gëm lay ànde ak nit ak engagement li ci gën a neex sax muy man Pape Niang muy abdu Bigué Ndiaye muy entourage bi nga xam ne ñoo àndandoo moom ko xam soxna si nga xam ne lépp lu muy def ci liggéey bu leer la koy def lépp moo ko doon defal boppam ñu teg ko ci lu leer ci lu wóor ba ci oto yi nga xam ne ni mooy transport bi nga xam ne jël nañ ko sax moom moo ko doon defal boppam ki yor transport bi ñëw toog mu fay ko ci loxoom parce que lu mel nii la doon sóoraale ndax lépp lu muy liggéey day bëgg mu set Moustapha nag man su ma déggee muy wax damay mën naa jaaxal ñëpp waaye man du ma jaaxal ndax Moustapha xamante nañ démb për ak tey soog a ñëw ñoo ànd nañ 2017 ba tey ji ñu yàgg bokk ay liggéey mu tappaleem tappaleem yi nag mu yàgg ci lool yàgg nekk ci ay tappale ak ay caaxaan waaye soxna si nag du ko tontu ndax amul jotam ba mu xamee ne traiteur la boobu loolu la ci pare ci moom kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam yor ay responsabilité ñooy ñu ne soxna si am affaire te mi ngi leen di xaar ñoom xam nañ soxna si xam nañ. moom nee na tontonte ak parce que yéen ay élèves ngeen. ñun nag danañ tontonte ak moom. <laughs> moom xam na ne ñun ñooy ay ñooy ñooy ay boosam ndax fépp lu ñu lépp lu ñu mës a ànd ak moom moom wàcc na fa ay dàllam mille 2017 dañoo àndoon ñu liggéey moom xam na ñun xam nañ mu yàgg def ay tappale yàgg def ay caaxaan deux mille 2019 ñëw mu pleine campagne mu quitté mu quitté parti bi dem dem Pastef ànd ak waa Pastef ngir bëgg a daaneel parti bi soxna si tey maa lay wax information boo xam kenn mësu koo xam loolu bokk na ci li première sortie bi mu njëkk a def pour jàppale parti bi loolu bokk na ci ndax gis na ne Moustapha Seck Maw dafa bëggoon a nërmeelal parti bi ci ndindi dafa bëgg a nërmeelal président Macky Sall mu naqari ko mu génn ak ay propre moyens jàppale parti bi résultat boobu ñu am ci ndindi mësuñu ko am yéen journalistes yi xam ngeen yàgg ngeen gis ay mu génn ñu am ñu am 67000 voix mësuñu ko am ci département Mbacké résultat yooyu noonu Ndindi moo jël première ñëpp ñëpp seere nañ ko loolu bokk na ci li war a tax mu génn kon mu safaa moom bu ne ñoon ay booyam lan day wax lu ko neex Moustapha Seck mooy ki nga xam ne nii ba léegi ñun ñëpp xam nañ ne Pastef lay liggéeyal ndax bi mu génnee parti bi ba léegi kenn musul gis fu mu defee déclaration ba léegi na ñëwaat na ci parti bi. te à chaque fois mu ngi wane ne moom Pastef lay liggéeyal ndax saa bu ñu jubee ay élection mi ngi def ay lobby mi ngi def ay tappale mi ngi def ay caaxaan nu parti bi nu parti bi nërmeeloo. femme mu ni li ko métti da ngeen wax ni da ngeen ko bëgg nal na limoo. Moustapha kenn na lu ko moo nal boppam. mën naa ne la ñun ñi nga xam ne ñun ñoo doon ànd ak moom sax dañ ñoo mujj jépp waale ngir Moustapha Seck Mawa ngir tappale yi ak caaxaan yi ak yàq gi nga xam ne nekke woon na ko ci parti bi Moustapha Seck Mawa mu ne soxna si da yàq au contraire moom mooy yàqal parti bi moom mooy ki nga xam ne nii nekk nañ pleine élection mu génn dem rejoindre Ousmane Sonko ànd ak moom di ko jàppale moom mooy ki nga xam ne nii 2022 def nañ suñu candidat dégg naa ko démb mu ne moom musul contre musul contre liste bu Benno Bokk Yaakaar waxul dëgg 2022 teg nañ liste teg di ko jàppale ñu dem pleine élection ñu dem ba ne subale élection yi mu débarqué ci permanence bi génne fetal keroog yàlla moo ñu dimbale waaye bakkan mën na faa rot loolu ku bëgg parti bi du ko def kon na bàyyi caaxaanam ak tappaleem yi nga xam ne ni moom la nekkee. carte yi mu wax ni da ko jël si ay nit yóbbu ko. loolu c'est foo amut su ma ko déggee ay rey damay jàpp man dama rus ko gis programme soxna si yow gis nga ko ñëwoon nga ci programme bi gis nga programme bi mu déroulé gis nga li mu def jël lu tolloog cent personnes finance de defal leen ay formation bi ñu ñëwee gis nga financement yi nga xam ne dana ko def vingt cinq millions mu yëkkati ko teg ko ci table pour ay financement kon xam nga ne kooku ku ku ku ku amul programme du ko def ñoom dañ li ñuy wax dara du ci dëgg seen carte d'identité yi quatre-vingt-dix carte la ñoom ñu ngi may dégg quatre-vingt-dix photocopie la te lépp lépp lu ko waral mooy soxna si bëgg leen jàppale bëgg leen dimbale bëgg leen a bëggoon leen a jàpp waaye ñoom xamul seen bopp ñu nekk fii di di tappale di wax loo xam ne dara du ci dëgg xam nga bu lu toll ne mille parrainage ku ko jébbale benn 90 carte d'identité nga ñëw naan ñun ñoo ko jox ay parrainage loolu ku ko dégg da ngay sax ruus. est-ce que ngeen leen. financement yi dina am yow fekke nga programme bi gis nga li yaay teg cent femmes la dajale ndaxte moom moo ko moom moo ko limité de moom moo ne na cent personnes laay dajale te bu bëggoon bu lu mu bëggoon ci ay femmes dina ko am bu ko neexoon tey boulevard bi dana ko feesal dell ndax jigéen ñi programme lañ ànd moom dañoo gëm programme am te nit ki ni muy maanaam jëf. mooy nattukaayu dëgg te soxna si dafa jëf ñu gis ko kon ñoom seen 90 photocopie yooyu ñuy wax nan la ko mën a comparer koo xam ne am na 7000 parrainage kon ñoom nañ bàyyi seen caaxaani ak seen tappale nee na ndindi dañu woon ginnaaw soxna si ginnaaw dañoo dem ba wanaa la ginnaaw ku xamoon ab ku xam Abdou Bigue xam Pape Niang xam seen taxawaay ci ndindi demoon nañ ba waa ndindi sax dañ mere ngir liggéey bu salde bi nga xam ne ne Moustapha Seck maam mi ngi koy def biir ndindi ak caaxaanam mi ak tappale mi ak fen yi nga xam ne yàgg na leen koo fen léegi nag fen yooyu ñu leen di fen nag dañoo dem ba yeewu gis koo xam ne ni dafa ñëw tegal leen programme di ci dox ñu teg ci suñu bët ñu ñëw ànd ak moom bu dee loolu mooy nal bi danañ ko gën a nal danañ ko gën a nal ba du dese daraan moom parce que ñun parti bi moo ñu ñor képp koo xam ne ni ay tappale ak ay caaxaan ak ay lobby moo la ci moo moo la ci bàyyi comme comme Moustapha Seck Mao lépp lu ñu mën ci xeex moom dinañ ko def. mu ne soxna si indiwu fi lu bees dafa waa parti bi rek reyalal loolu ay caaxaan la ku gis suñu journée bi nga xam ne soxna si lu bees tàq la indi nga xam ne ay femme développement la dajale indi leen waxtaan ak ñoom. ñu gëm programme am mu defal leen formation dajale leen defal leen ay ay financement ku gis journée bi ni mu taaroo nga xam ne jox na si lu bees tàq la indi loolu moom waxi ku ku daanu ci sareet la. Kantaan ak soxna si mu ni day nax Amadou Ba ak soxnaam. non loolu man bu ma déggee mu Moustapha Seck di wax loolu ay rey damay jàpp ko xam soxna si ku gis programme am nga xam ne mook Amadou dañoo yàgg démb tey lañ soog a ñëw su su ko neexoon tey su ko su ko su ko neexoon tey soxna si bu ko neexoon man du du génn fenn këram lay toog mais teraanga bu mu seq ak amatu ak yéene bi mu am ci département Mbacké rawatina commune bu Touba loolu moo tax mu génn mu génn ak Amadou mu génn génn di jàppale président Amadou Ba génn ak ay ay propre moyen nag man may wax man lu leer fa loolu laa ko teg propre moyen la génne di jàppale président Amadou Ba amul benn moyen boo xam ne parti bi jox na ko moom mooy génne ak ay moyen di jàppale Amadou Ba. ok léegi lan mooy seen avenir si wàllu politique département bi yéen waa kër waa ànd ànd ak yaay puy bi da koy dérange aussi parce que Moussa moo wax. ànd ak yaay puy war ko woon def parce que neen boppam lay liggéeyal neen dafa waroon ñëw rek sóobu si affaire bi say si affaire. ànd ak yaay puy bu koy déranger dana ko gën a déranger nan la ko ànd ak yaay puy di ko déranger te ànd ak ab du Bari mënu koo déranger Moustapha na bàyyi tappale mi ak caaxaan mi bu ko ànd ak yaay puy di déranger dana dee ànd ak yaay puy bi li ci neex mooy département bu Mbacké rawatina commune bu Touba ñoom ñoo ci gis seen bopp. programme bi doy leen ñoom ñëpp adhéré wu ci ànd ak moom di liggéey te résultat bi ñu bëgg mooy 2024 incha allahu rabbi ndam li Amadou Ba di am département bu Mbacké participé ci rawatina commune bu Touba. voilà euh, parti bi mel na ni dañ leen wut si kër gu nekk. danañ ñu wut si parce que soxna si programme bi mu yor moo riis dafa am programme boo xam ne da koo teg gëm ko ma lay wax lu leer nag soxna si woowut kenn muy Pam Ñang muy Abdou du amul kenn koo xam ne ni woo na ko foofu am na am solo lu ma fiy leeral. soxna si dafa teg programme moom ñun ñu dem seeti ko ànd ak moom moomu di wax Moustapha Seck Mao ñu waxtaan ak moom mu jox ñu programme mu nekk programme bu riis ñu am ay jafe-jafe wax ko ko ne dañu am problème mu ndox mu ne ñu ngeen ma defal débit indil ma ko ñu dem defi débit bu mat débit bu ëpp toll na ci 20 millions bi ñu ko defee moom Moustapha Seck Mao ci boppam jaaraat ci ginnaaw dem ci soxna si pour mu jox ko xaalis pour mu récupérer ko def ci poosam soxna si ne ko maa ko def man li ma séq ak yéen mooy defal leen ma débit ngeen ñëw ma defar ko ndax askan wi gis ci seen bopp mu Moustapha Seck maamu moomu di wax dégg naa ko démb mu ne xaalis bi ñu ko joxoon jëlu ko ndax da koy bañ a jël bu demee tourné ci àll bi ñëw ñu ne da cee def ay finance ah aka moo mën a wax lu dul dëgg Moustapha Seck maamu mooy ki jël xaalisu soxna si moom mooy ki nga xam ne ne moo ñëw ci moom wax ko programme am ñëw ne ko dafa am ngénte dafa am leneen leen mu sa soxna si yëkkati 200000 francs yëkkati ceeb yëkkati diw yëkkati ndox ak ak boisson jàppale ko ko moom Moustapha nga xam ne ni moo ñëw ci soxna si ne ko ñun dañoo am programme dañoo bëgg a dajale gone yi waxtaan ak ñoom ci parti si yëkkati 150000 francs jox ko ko mu récupéré ko ànd ak ay gonam ñu dem def ci ay reer def ci leneen ak leneen kon Moustapha Seck bu ne moom jëlul xaalis soxna si waxul dëgg soxna si yàgg na koo jàppale démb tey soog a ñëw soxna si nag li ma waxoon laay waxaat amut ak moom affaire ba mu xamee ne jaam la ak traiteur la la ko wan ginnaaw kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam génn ay moyens jox ko ko pour mu jàkkaarloog soxna si soxna si ñooñu la am ak affaire te ñoom xam nañ soxna si xam nañ lépp luñ baax rek dina ko ngeer enfin Moustapha Seck mooy cordinateur zone Ndindy yéen tamit Ndindy ngeen nekk di liggéey ak moom est-ce que tendance boobu du yàqal parti bi. non du ko yàqal zone boobu ñun dañ cee bokk mu ci profité di ci wax lu leer fii ay fan yu néew danañ def assemblée générale ndax zone bi ñun kenn gënuñu cee bokk. dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo tabax zone bi ba mu toll fii mu toll kon du ñu tabax suñu ndono ba mu toll fii ñu bàyyi benn saay-saay jóge fële bëgg koo yàq di wane ne dafa gëm parti bi da ko lépp loo xam ne ni zone bi mi ngi koy joxe incha allahu rabi ñu ngi taxaw jàmmaarloo ñoom kilifa yi ñu ngi ñu ngi ñuy ñu ngi leen di xaar zone bi ñun dañ cee bokk ay fan yu néew danañ def assemblée générale lépp loo xam ne ci zone bi lay jógee danañ xool ba xam moom lañ koy jox wala dañ koy teg ci digg bi lépp luñ ci bañul rek ba bañun ko ci ndax ñun zone bi dañ cee bokk bokk ci ñi ko tabax ba mu agsi fi mu agsi moom mu yàgg doon tappalekat élection yi jàll la def lu gën a garaaw mooy bi mu ñëwee te moom li ma gën a naqari ci moom saa boo déggee Moustapha di coow di xiixaan rek xamal ne élection mi ngi waaj a ñëw ay moyen mi ngi waaj a ñëw mu jéem a xiixaan moyen tege ci loxo mu lekk ko dem yóbbu ko gërëm def ci leneen loolu bii ba bii paa du jàll du ñu ko may moyen di ñëw mu koy jël di ko jox rakkam mu koy def ci ab wéef di ko wéefee lu garaaw laa lay wax élection yi jàll moyen bi mu ñëwee rakkam la ko jox mu def ko ci wéef di ko wéefee nga ne dangaa ngaa parti bi nga ne da ngaa gëm parti bi gagné loolu c'est faux moom musul gëm parti bi man li may wax mooy moom Ousmane Sonko ba léegi moom lay liggéey loolu laa gëm parce que ba mu génnee dem ci Ousmane Sonko ba léegi ñëwaat ci par amul fenn fu mu defee déclaration fois lépp loo gis Moustapha di ko def sabotage la yàq la bii nag du jàll soxna si nag du wax ak moom parce que amul jotam waaye ñun danañ wax ak moom nee na ñun ay emprunté am lan ñun ñooy ñi nga xam ne fépp fu ko mas a fekk ay dàllam bàyyi na ko fa combat bu ñu mas bokk man ñun daaw na w ñu ko fa 2022 lu waralaat suñu ànd mooy dañoo ñun dañoo bi gëm ndamal président Amadou Ba que président Macky Sall. loolu bokk na ci li waraloon ñu ñëw àndaat ak moom joxaat ko léegi ne ko nañu ànd liggéey. mais depuis boobaak léegi gis na ne luy yàq lay def luy saboté lay def luy jaxase parti bi lay def li ñuy def nag bi pas du jàll. tàmm nañ kilifa gu ñëw ngir bëgg jàppale parti bi ñu fexe ba xiixaan ko bii nag ça ne passera pas bii du jàll. lépp lu ñu leen jaral danañu ko jaral ñun. boo amul looy dolli xanaa rek. li may dolli daal mooy di santaat département bu Mbacké rawatina commune bu Touba ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ak yaakaar bi ak bëgg-bëgg bi ak yéene bi ak doyloo bi nga xam ne doyloo nañ ko soxna Fatou Bintou Boye di ko wax ne ko fi mu teg tànkam foofu la bu mu ko teggi résultat bi mi ngi ñëw ñu ngi ciy teg suñu bët depuis bi mu commencé génn ba léegi ku mën na def 2500 personnes la dajale ñi dañ ne ko pare nañ fépp foo wootee boulevard ba boo ko woote woon dañ la koy doyal ba mu fees parce que sa programme doy nañu da ñoo jox programme ba pare di ko jëf ñuy gis coow li a bëri coow li na lim na ko def ku mën na def li mu def ku def li mu def ñu xam ne yow jàmbaar nga waaye toog ci ay ruq nekk ay kilifa di jël ay xaalis di jox nit pour muy attaquer nit xam nañ lépp kilifa yi nekk seen ruq di ko def soxna si xam na ko te mi ngi jàkkaar jàkkaarloog ñoom te mi ngi leen di toog di lépp lu leen jaral jaral nañu ko. ma dolli ci ne Touba politique bu salte bi ñu yor ak ni ñu koy defee bokk na ci li tax sëriñ bi tere politique ci dëkk bi alhamdulilah nag soxna si bi mu ko comprendre nekk koo xam ne li mu ñu njëkk wax bi njëkkee daje ñun lépp loo xam ne ni bëgg-bëggu bi la na ngeen ci dox. lépp loo xam ne ne sëriñ bi bugg ko ci dëkk bi na ko moytu loolu moo waral tey taxawaay bi nga xam ne am na ko ne lépp lu may def kat sóor naa ci sëriñ bi ndax man taalibe laa ci kër gi laa bokk lépp lu may def dinaa dem ba fa nga xam ne ni sëñ bi terewu ko fa moo ko fay defee am na lu am solo mooy ci département bu Mbacké ba ñu dalee politique ba léegi musu fee am benn nit bu ñëw def démarche génne cinq millions def ko financement def ko ci commune bu loolu musu fee am mu ni 25 millions yooyu wérul fii ay fan yu néew dana leer te yow ñu bëri xam nañ cinq millions la soxna si génn teg ci table te 25 millions dafa am lu ci gën a neex mooy bu njëkk xam nga lu ñu daan xam ñëw taf yëngal def say def say formation wane ne dangaa def formation defal dara nga wàcce leen ñu dem déedéet dana man du ma def noonu damaa jël jigéen ñi teg leen ci ay condition yu baax génne ay millions yu bëri teg ci table ji ñu defal leen ay formation ci ay matières yu bëri mu ne duma ma ci yem du leen defal formation bàyyi leen de dama leen ay financement mais du ma ci dinaa leen gunge ba kenn ku ne mën a dem ak sa bopp ndax may la jën kat li ngay nappi moo ko gën kon département Mbacké rawatina commune bu na ñu ñëw gën a jàpp xam ne lu mel ni mosu fee am soxna si li mu indi programme bi mu indi dafa ñëw pour dekkal yaakaar te ñëwul rek wax ko de da koy jëf nit ñi di gis 25 millions du ay caaxaan de dem jëli ko lijjanti ko ñëw jox ko jigéen ñi jàppale leen te ñëw rek jël bi noonu jox leen ñu dem de déedéet dana du ma ko def ndax damaa bëgg ëllëg su ma jàkkaarloo ak ñoom kenn ku ne tey mën a génnal sa bopp di ñeneen ni dañuy Cheikh Abdou Diouf amoon am na ay leader yu wax mais boo boo boo mënee décortiquer da xam seen seen ay flèches ko jëmale si soxna si euh, mel na ni kon soxna si daal jamono ji moom. am naa lu am solo am naa lu am solo lu ma la wax léegi. Ah. nee naa la Moustapha soxna si amul jotam ba mu xamee ne moom traître la ba mu xamee ne warkat la booba la bare ci moom waaye kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci am moo xam ndombal tànk bu nu mën a yor di ko ruux di jël xaalis di ko jox pour muy attaquer soxna si xam na leen ñoom xam nañ soxna si xam na te mi ngi leen di xaar te lu mu lu mu leen jaral rek soxna dana ko ko jaral Moustapha nag amu lu may wax ak moom man dama ko yërëm man dama yërëm Moustapha parce que man tappale ak caaxaan yi mu nekkee nga xam ne dem na ba dëgg ñëpp ko bàyyi yow dem ba nga xam ne ni yow kër gi nga nekk sax mënoo fa am benn électeur ngir ay fen ak ay tappale yi nga xam ne nekkoon ko ci ndindi waaye alhamdulilah maa ngi santaat population bu ndindi bi ñu yeewoo xippi seen i bët xam ne programme bi ñu bëgg ndam li ñu bëgg fenn lañ ko mën a amee mooy si soxna Faat Bintou Pouye moo tax ñoom ñëpp ñëw nañ jox ko bopp ñenn ñi li ci gën a daw sama yaram ci dàgg yi lañ doon jógee di daw ñeneen ñi di ko fenn ne soxna si bu wootee lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi dem wuy si ko ndax programme bi mu ñu tegal kat depuis bi ñu gisee parti bi ba léegi amul kenn ku ñu mës a tegal bii programme ndax li tax ñu gën koo gëm mooy soxna si bu dee teraanga yàlla defal na ko bu dee tur yàlla defal na ko te bu leen woowoon lu dul lii dañ koy dem wuy ci kon mu ne ñu ne ñoom bu dee lii la leen woo xam na ne seen njëriñ la leen wooye Moustapha man maay wax ak yow xam nga man xam naa am na lu bëri loo xam ne waxuma ko te dinaa wax ndax yow xam nga fi ñu jaar yàgg nañoo xeex yàgg nañoo jàmmarloo sa tappale ak sa lobby yi nga yàgg def ci parti bi xam nañ ko te dafa am lu gën a garaaw Moustapha dafa def lu garaaw dane soxna si daa yëkkati ay xaalis di ko jox ay jigéen lu garaaw la def diffamation la def waaye nag soxna si du ko topp parce que koo xam ne ni mën ngay wax ci suuf boo wéetee di jooy loolu duñ ko def ku ne xam ne barki démboo fii la fi def lu mu fi ne weng ñu porté ko plainte ba mu demee ci kanam kii da doon jooy di jéggalu jooy saa boo génnee ci biti di coow di wax kon soxna si amul jotam ñun nag ñi ngi koy xaar ñoo bokk parti bi li maa ngi waxaat kilifa yi lii di zone 2 Ndindy suñu patrimoine la du ñu bàyyi kenn di ko yàq fii ak sa fii ak fan yu néew danañ def déclaration wane ne tey lañ gën a jàpp zone bi tey lañ gën a ànd ak zone ndax ñun zone bi kenn ëppale wuñ ndax dañ ciy liggéey ba toll fii ñu toll ba muy buudee di dem ci Ousmane Sonko ñun ñoo taxawoon jàpp zone bi soxna si ànd ak ñun dimbali ñu kon nag duñ dem ba agsi fii mu agsi mu mu bëgg continuer lobby bi ñu ko ciy seetaan lépp lu mu ko jaral ak danañu ko jaral. merci beaucoup Pape am fàttali moo doon ñëw ngir tontul soxna Fatou Bintou Pouye ak mouvement bi ginnaaw bi fi Moustapha Seck Mawa jaaroon coordonnateur zone Nindi am ay attaques jëmale ko si ñoom jërëjëf mbokk yi.